yedd yi la sa damir di yedd damir mooy conscience mooy li ngay yëg ci sa biir mu mel ni day wax ak yow loolu xam ne toujours nit ku ne ni nga amee ni zaayir ñu lay gis ak jëmm noon nga amee ci sa biiraat keneen koo xam ne yow la encore waaye day wax ak yow ci lépp loo nekk mu ne kooku nag yedd yim lay yedd moom lay moo lay tax a jàpp ne yow daal yaa yées ci nit ñi mu ne waaye fii yaa ngi yëg loolu di yëg ne yaa yées ci nit ñi loolu li muy firi mooy yow ci ñu gën a baax ci nit ñi nga bokk ndax ki nga xam ne taxul mu egg fa ñuy bëgg ci mbaax toujours moom day naw lu baax li ci moom waaye du xalaata yedd boppam yow miy yedd sa bopp nag ndax sa jëm joo ci sa biir di la yedd nga di ko jàppu bay bàyyi xel ne eggoo fa nga war a àgg ci mbaax loolu rek dèjà ak mbaax lay firi ndax nit ku rëy wala ku naw jëfam foo ko fekk day defe ne lim baax doy na moom kon loolu lañu xikma bindi loon ñu ci dolli rek xanaa di soññaat suñu bopp ak mboolem mbokk yi ci fu yenn ci mbokk yi ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci zikr yi gën a am solo ci askar yi la bokk ndax loolu yàlla la ne moom daf koy def yonent eh, malaaka yi di ko def kon nit ku nekkati te gëm yàlla rek dee ko def eh, tey ñu indi leen allahuma salli ala sayidina muhammadin ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jéglu wasalaamualeykum wa